donc euh, imam tey nag dañuy laalaat beneen actualité parce que actualité bi nag ñuy dugg moom dafa xaw a dafa xaw a sensible de telle sorte que euh, ñun ñi nga xam ni man ñun la ñuy wax parce que c'est la la jeunesse jeunesse bi dafa commencé di di di di perte ay valeur am parce que bu ñu xoolee euh, fan yi ñu ñu weesu dañu gis ay ndaw yoo xam ne mbuur lañ nekk mhm. euh, di fa def ay lomotif mhm. di fa nekk ak ay góor di mhm. ci met ay trente xuma quarante personnes yoo xam ne ñu nekk di di di séyante seen biir yàlla na ma yàlla jéggal sax ci kàddu gi mu doon loo xam lu ñaaw en tant que imam en tant que euh, euh, porte de voix lan nga lan nga ci mën a wax waaw Pa Omar métti na képp kuy sénégalais ndax waxuma sax nga koy jéem a seetaan loolu seetaan ko sax mën na diis waaye le fait que nga dégg ko rek nga dégg ko yëg ni sañu suñu njaboot ñoo ne ci biir euh, ay appartement yor seeni téléphone di filmer seen bopp ci loo xam ni même bu daganoon même bu fekkoon jëkkër la ak jabar sharia nanguwu ko waxuma la koo xam ni juddu sax defagoo ko parce que bu ñuy wax ay vingt ans dix huit ans dix sept ans loolu pour man c'est de la catastrophe pour le Sénégal ma jàpp nag ni responsabilité partagée la. lislaam waxoon naa ko fii ci mbiru affaireu góor jigéen. ma ne dëgg la de mën nañoo xeex mbirum góor jigéen criminaliser ko. mais débat bii xew rek moo ñu war a won ni. mbiru góor jigéen ñun àggaguñ ci sax. ñun fii mu toll nii. dañoo am ay préoccupation yu jar taxaw. sol suñu dal lijjanti loolu ba mu ne kocc ne koroj. ñu soog a ne ci yeneen débat maanaam lii nii xew ñu tooñ nag askanu mbuur mm-hmm. parce que ñun ñii dañu xam mbuur mm-hmm. di fa dem ay guddi yoo xam ni ay guddi yonent bi la di fa dem ay tàkkusaan yoo xam tàkkusaan yoon di fa dem ay conférence xam fa ay nit yu baax mm-hmm. mais suñu déggee lii nga tudd mbuur léegi bu ñu waxee lii mbuur yëpp nga jël leen dugal leen ci lu fukki nit wala fanweeri nit def ci population boo xam ne xaw nañoo ëpp ay million wala ay junni nit ñu bëgg jël lu 30 personnes def taxé ko waa Mbour ñaaw na trop mais dama jàpp ni ki war a njëkk a jóg. avant état di jóg damay gis nag nit ñi bu dara xewee rek ñu ne état na autosaisiru mais bu fekkee ni réew mi lépp lu xew rek ñu ne état na autosaisiru bu yàggee daanaka dootuñu am ku ne ci bit yi xam nga lu ñu war a def. mooy nañ def Pa Omar ni sayyiduna Muhammad waxoon sallallahu alayhi wa sallam mooy addibu awlaadakum xam nga nit ñi dañuy ñaan lu ci am doom doo ko gis sëriñ saa ngi ñaanal rek ay dama boo ku ma ñaanal nga am doom ku ma lii nga am doom mais xanaa xamoo ñaan am doom am na lu ko gën a am solo mooy fexe ba ñaan sa doom tegu ci siraatal mustaqim xam nga boo ñaanee ba am doom demande nga yàlla benn pos léegi ñu jox la benn poste nga yor poste ba ñu ne lekk nga fa xaalis wala nga yor benn poste ñu ne daaneel nga société bi xam nga ban sanction nga moo lay dal il faut que ñu ñu ñu ñu sanctionné la maanaam nga am doom yaa ko ñaan yàlla yaa def sabab yi tax nga am doom nga wëlbatikuwaat doom ji juddu bëri na xale yoo gis seen bàyyi dugaluñ leen ci alquranul karim ngir ñu jàng dañ leen fa yóbbu pour buñ ko laajtee nga ne dem na daara ja ñun yor daara nag maa xam li may wax. am na ñoo xam ni li leen war responsabilité papa yi ak yaay yi. dafa am jur yoo xam ni ils ont failli leur mission. seen mission dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko won gannaaw. dañoo yàq li maanaam responsabilité yi leen yàlla dénkoon dañ ko woyofal. ci ban anam. maanaam mooy wareef la ci jullit bu ne. Haj Pap Umar mhm. mooy nga fexe ba sa doom. li tubaab tuddee. dissertation nga fexe ba xàmmeel ko lan mooy lu baax fexe ba won ko lan mooy lu bon wax ko lan mooy avantage wu ne ci lu baax ak lan mooy inconvénient wu ne ci lu baax ne ci lu bon nga won ko ni ñaari résultat yépp nag bu ci ne fii àdduna nga la la nga koy soog a gisee doog a dem ak moom nag àllaaxira mais revenons tuuti nañu dellu ginnaaw ñu arrière xale yi dafa am lu ñuy tari amoon nañ mag ñu ko defoon. fii la ñu guddi taawun fekkoon. dëgg la mais bu yeboo ñu ne mais fii la ñu guddi taawun fekkoon. exactement. Mhm. ay xale yu jigéen yu mag yoo xam ni ñoom ëppoon nañu âge bi. parce que ñii ay 17 ans ay 16 ans la ñu am. dama ne Pa Omar. Mhm. ku mu neex bañ a li xew. Mhm. xale yi dañuy tari luñ jànge ci daara ji. lan mooy daara ji mooy société bi xale bi 17 ans mënu fee indi lu bees. mënu fee créer lu bees. fan la mbir mi bañe mi ngi bañe ci mbànjaxaan gi xoolal guddi town ñi ko defoon ba nëga ni am na ci ñoo xam ci la jaare am tur ci la jaare siiw ci la jaare am teraanga ñii ci la jaare am visa dem tukki subhanallah ci lu bon léegi nag su yàlla dogalee lool di am baare wuñ ko mu dépassé yeneen xew-xew am fi yeneen ko yeneen ko gën a xam ba yegg si ci lu mel nii jot na nag pour man li ma li may wax ni alquran moom la ñu sant mooy xuzu xisrakumu mooy lan mooy responsabilité parent bu ne nga xam ni balaa laa mbedd mee yaral mbaa mu lay yàqal mbaa état di jóg di defar mbaa mu lay yàqal war nga fexe ba sa responsabilité way jur nga wàccoo ak moom nañu jàngal suñu doom yi lan mooy éducation ba pare ñu bañ leen nag xam nga damay wax toujours ni doom buñ ko dee yar di ko jàngal éducation buñ ci exclure lan mooy éducation sexuelle jullit bi bu mu épargne loolu yaakaar ni yàlla jàngalu ko ko mais imam mais imam su ñëwee foofu noonu xam nga tey dañuy laar ci côté euh, coutume et traditionnel parce que ñun suñuy parents euh, sax lay wax mhm. ndax sénégalais yu ci bëree bëri da ngay am kersa sax mhm. di wax ak sa yaay euh, bu dee jigéen nga gis règle da ngay am kersa wax ko ni ko yaay gis naa règle mhm. wala da ngay am kersa gis sa papa ni ko papa kat affaire u sexe sexe ak yooyu la da ko rus yow en tant que jeune kersa la ci xale bi envers aussi ci papa wala ci yaayam. loolu nag culture la ak euh, façon dundin moo ñu ci yóbbu. mais li jaadu woon mooy xale bu góor. su xasee ba majeur. lépp lu diineem lépp lu concerné diineem. war na ci mën a discuter ak baayam. xale bu jigéen bu xasee ba gis mbaax. lépp luy discussion boo xam ni diineem la ci wàllu sëyeeg lu ci aju war nga ci waxtaan ak sa ndey mais su fekkee ndey tanewu la baay tanewu la. yow xale nga juddu ci diggante boobu yu mel nii rek mooy xew ndax alquran dafa wax ni wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa laa yaxruj illaa nakidan way jur bu baax way jur bu jub way jur bu xam bu juree doom même bu fekkee doomam dana ko të du ko të ci waxtu wi day fekk doomam dem ba am responsabilité financièrement parce que xale yëpp boo demee am na kër gu ñuy fanaani te mën na am sax seen baay ya am na ci ñoo xam du ñëpp nag dana am ñoo xam seen baay yi wàccoo nañu ak ñoom. ci côté diine parce que parce que foofu laa bëggoon a ñëw imam parce que parfois tamit aussi mm-hmm. c' est l' environnement qui qui détruit une personne mm-hmm. parce que da ngay gis am sa xarit mm-hmm. comme man mii ñu yaree ma yarin bi yow nga am benn yar benn valeur bu nekk ci yow ñu dindi ko ci yow aussi imaam loolu tamit euh, société bi am na ci part de responsabilité. Ajoumar ah, mais nag naa la wax de. société bi loolu la ñu bëgg gis nga Sénégal dañoo bëgg di màcc Dakar tane duñ tàqamti ko loolu mënta ne. Sénégal liñ bëgg mënta Sénégal bu dee diine képp authentique ju leer naññ ju amul benn polémique amul euh, maanaam détail amul kii diine ju set ju sel. billaahi bu dee ci internet bi duñ ko xool. boo xoolee vidéo yi nga xam ne ay lomotif la ak vidéo yi nga xam vidéo leneen la moo ëpp fi mhm. waa léegi ñen ñoo koy vi eh, da ngeen yaakaar ay jinne ñoo yor téléphone yi déedéet ay jinne vi ko ay malaaka vi ko sénégalais yi ñoo koy vii comme li may wax toujours ci daayira yeeg gàmmu yeeg jotaay dama naan soo demee ca baar ba mhm. bu fa taxaw naan Jean wala Paul mhm. déedéet laajal boo bëggee woote neel ana Malick Diop ana lamin ana Umar ana Babacar tuddal ñooñu ñoo ñooña ci biir baar yi di naan sàngara si ñoom Jean ak ñoom Paul ñu ngi seen kër yi wuti wuñ dara foofu Sénégal li ñu bëgg ñu ngi ci dañoo bëgg nag ne dañ koo bëgg te heure boo ci waxee walla nga am benn position boo ci jël ñu ne kaay leen ñu attaqué ko gis nga Sénégal caaxaan lañu bëgg ñëpp dañuy dañuy seetaan fecc xam nga léegi téléphone yi ah. ñu bëri dañuy seetaan pecc dañuy seetaan affaire porno dañuy se dañuy déglu musique ci seen biir léegi te buñ génnee kaalaw bëgg la woon ni duñ ko déglu man nag dama gëm ni sénégalais yi kenn moomu fi sa morom république rek a ñu boole ak citoyenneté ak mbokk ak diine ki ñu moom tey superviseur bu mag bi mooy jalla jalaaluhu azza kamal kooku la nit di rendre compte gis nga nit soo fexee ba sa diggante ak sa borom nga yëg ne dara doxu fi li ne ci diggante bi tey obstacle du la déranger mais xale yi caaxaan yii ñu nekkee bu buñ leen sanctionné cinquante nañu dem na ci kaw sanctionné ñi tax xale yi di dundu lii. mooy seen parents yi xanaa. maanaam parent yi am nañ ci responsabilité. parce que foofu aussi tamit laa bëgg ñu appuyer fa. parce que xam nga xale danaan moomin la xamul dara te da ngay gis koo xam ne day jur doomam mu am deux ans wala trois ans mu yëkkati téléphone. ab iPhone. jox ko am na wifi ci këram. non imaam nañu wax nañu wax li fi nekk parce que société bi la société bi la parce que am na ñoo xam boo leen laajee ñaar ban âge nga amee am téléphone dañ naan la ay 5 ans 6 ans. dëgg dëgg neexul léegi yow imagine am connexion euh, sa sa téléphone. yaa ngi dégg bu la neexee seetaan lu la neex. Euh, ah da ngay dugg benn whatsapp bu euh, koo xam sangu sa téléphone sangu du dëgg ah yow da nga yor sa doom ci biir sa biir kër mu nekk ci biir néegam. doo doo dugg di xool lan lay def ci biir ci biir néeg bi parfois nga gis xale boo xam day nekk ci biir néeg bi di di ma sangu ngay muy karang-karange nga xam ni moom am na lu xew maa détaale mu nekk di rey boppam ci biir néeg bi maanaam li ma lay wax moo rek mbir mi il faut que ñu indi ñu ñu ñu boole ci diine mais ñu indiwaale tamit yar bi lislaam di yare ñun ni lislaam di yare ak nii ñuy yare bokkul mm-hmm. l'islam ni mu yare base bi lay defar base bi su baaxee nga élever xale bi ci loolu cultiver ko ci su màggee su dérapé responsable moo mais lii xew nii boo ko xoolee xam nga Barack Obama Barack Obama doo xam nga ko xam naa bu baax a bi mu ñëwee Sénégal ah xam nga li may wax toujours ne gars yi nit ku nekk nañ koy jox cëram gis nga bi mu yegsee Sénégal xam nga ñëpp a yëg ni président bi ëpp puissance ci àdduna bi ñëw na ànd naa ak ñaari doomam yaa ngi koy fàttaliku mais dañ ko laaj bi ñu interviewé jabaram moom moo wax ni ay doomam am amuñu téléphone. beneen bi ci des du ñu seetaan tele yenn bis yi te boobu ñoom ñoo dëkk Maison Blanche. dëgg la mais ñun Sénégal xam nga lan la ñu xam gis nga bëri na koo séen man xanaa xamoo am na ñoo xam ni bu ma bëggee xam ni yor nañ xaalis rek ni ñuy doxee wala ni ñuy waxee même ci internet bi am na ñoo xam ni bu ñuy wax. wala ñuy def seen yenn mbir yi da ngay xam ni teraanga tax ñu koy def. Sénégal koo séen mu yor xaalis. Mhm. dootul am sago ci yar doomam. bëri na parents yoo xam ne tey li tax seen doom yàqu responsabilité bu ñu bu ñu bu ñu waroon a jël la teel ko seen bopp ñu bàyyi ko ndax lan teraanga imaam dëgguma la sax yàlla bu la dee dog waaye tamit dafa am beneen touche moo bëgg a dugal yow par exemple en tant que imam tey sa boo amoon sa doom doom bu am 6 an 7 ans am nga ko nga gis ko mu sol par exemple benn crop top xam nga luy crop top imaam xaw ma crop top de imaam nag imaam da ngay nekk ci actualité non imaam imaam nga gis koo xam ne day sol crop top mooy bi ñuy xëcc ba fii ba ci jumbax bi waaw def benn def benn benn kii bàyyi seen wenn kii xam nga tey par exemple yow mi imaam en tant imaam boo gisee xale bi def loolu mm-hmm. da nga naan ko hee ba mu naa te yabu la sax ba ba koy def mm-hmm. kon ça veut dire am na éducation boo ko jox man de bu ma ma personnaliser débat bi ci sama côté man mais damay wax ni yow fii nga ñëw xam nga la donc kon mën naa bañ a wax ci sama côté. waaye damay wax ni. Mhm. bëri na kuñ yaakaare diine. Mhm. soo demee këram la nga fay fekk mooy tax boo yeggee da ngay lâchewuwaat. foofu rek laay waxee parce que gis nga Sénégal. Mhm. li ñuy tere yëpp. ñi ñuy yaakaar te di leen tàllal loxo. ma nga ci seen kër yi di fa lëmbee. li c'est nag foofu la touche bi ñëwee parce que parfois da ngay dégg ni imaam diw dooma moo def nangam wala kilifa diw dooma moo def nangam mais tamit dañu waxante dëgg tey bu doom doom yooyu def di def dara tey ñu dañuy jël loolu lépp xëpp ko société bi nga xam ne ñoom ñoo pauvre mooy ku ma ku ma am ndey ak ku amul ndey. maanaam maanaam xajumar. loolu kenn ku ne ci ñun. sa responsabilité la. ci pour nga war a taxaw yonent bi dafa wax ni. yar leen seen doom yi ci ñetti mbir balaa ñuy majeur. muy yéen ñett voilà mm-hmm. addibu awlaadakum ala salaasa xisaalin mm-hmm. nee bi ci jiitu mm-hmm. ngeen fexe ba xale yi ngeen yar leen ba jàngal leen alquraanul karim loolu mooy baas bi mooy première xale xamagul yonent bi xamagu ko jàngal ko alquraan mu commencé yaru ci jàng alquraan ñaareel bi ci des nga fexe ba cultiver ci moom tarbiya lislaam alquran ji day ànd ak yaru lislaam lan mooy yaru lislaam mooy teel ko woon ne ko en tant jigéen am na loo warta sol en tant jigéen am na noo warta doxe en tant que jigéen am na foo warta dem toog ndax lan yàlla daf la wax yow mii xale ñu yar la ci loolu pour boo màggee baatu wax xar na fii buyuutikunna naag wala tabarraj na tabarujal jaay yooyu du la jaaxal mais xale bu ñu yar ci bàyyi ko mu sol lu ko neex di wax lu ko neex di jàng pàkkar di jàng pecc ba xëy màgg nga ne ko wax xar na fii buyutukun na cooway bëri mais du ko def ñetteel bi ci des wala ñaareel bi nga yar leen ci bëgg alquranul karim bi nga leen bëggloo alquran nga bëgguloo leen tamit ki nga xam ni moom la yàlla def mu gën jaam yépp muy sayyiduna muhammad ñetteel bi ci des mooy ahlu bayt rasuul bu ñu leen tuddee mooy nga fexe ba képp ku ñuy askanale ni yonent bi mooy sa maam moo tax ñi xam xaqiqatul muhammadiya suñ gisee ñu ne nit yonent bee maamam même bu fekkee waxul dëgg dañ koy jox xormay sëtu sayyiduna Muhammad xam nga lu tax mooy bëgguñoo tombe ci piège benn mu nekk dëgg ñu ñu ñu ñu xotti xormaam wala mu ñàkk a nekk dëgg ñu def loo xam ne waruñu koo def moo tax heure bu nit nee sëtu yonent bi laa mag ñi laa wax de du ñu lijjanteeti ndax wér na wala wérul dañ lay jox maqaamay sëtu sayyiduna Muhammad ba keroog muy jeex. imaam nañ duggaat ci jeunes yi ba tey man du ma bàyyi jeunes yi. Mm-hmm. parce que xamul tax parce que euh, tey damay gis jeune boo xam ni. bisimilahi rahmaani rahim ba mu jeex mënu ko. Ah. nga gis jeune boo xam ni. Uh-huh. tey mm-hmm. sangu set sax mënu ko imaam. <laughs> xam nga imaam nga te nga ni yow euh, Seydina Muhammad lan la tuddee sallallahu alayhi wa sallam wala Seydina Omar lan la tuddee wala wala ñu tuddee la tur bu la mm-hmm. te yooyu yëpp li ñuy wax yëpp ci nga xam ci euh, ci ci charte diine la nekk yow mënoo ko. Mm-hmm. c'est-à-dire mooy dama la bëgg a expliquer benn mbir gis nga lii ngay wax nii. Mhm. defe naa ni bu ma doon wax ñaata yoon laa ko wax dama naan plus de cent fois. maanaam ñun bañ xàmmee ba nag lii lañ gis. Mhm. gis nga mu xajumar euh, mhm. même seetloo parents d'élèves yi. li leen école française jaral. ci comportement solu yëre ba ñuy sol. oto ba ñuy dugal xale bi. saag yañ koy jëndal. la ñuy fay par weer. soo ko xoolee comparé kook daara ji. boo leen fi doon laaj benn 2000 francs mm, maanaam man nag képp kuy jàng di wàcc di ñibbi amul fay man sama kër lopp téeméer ndongo fi amul kenn du fay. dégg jàng gratuitement dem wàcc ñibbi. Mm-hmm. imaam loolu révélation bu am solo la. Ah parce que da ngay xool. que ni euh, par exemple élève bi nga xam mooy dem di jàngi privé. tey da ngay gis benn parent d'élève boo xam day fay cent cinquante mille chaque mois. Mm-hmm. tey nga gis par exemple nii nga ni yow nit jullit nga. yow nga ni par exemple ni euh, Seydouna Muhammad moom ngay nooyee mhm. tey nga gis da nga gis ndongo yi sax imagine xale yi nga xam ñoo taxawaal ci mbedd mi imam imam loolu dafa nekk loo xam ne tey Sénégal euh, li nga waxoon sànq ci laay ñëw te dama lay appuyer ci loolu mhm. parce que da nga dafa am loo xam ne foofu lañ war a commencer mhm. wax ko mais ay criminalisation c'est bien beau mais dafa am foo xam fa lañ war a dafa am fu ñu ko war a mën jiitu parce que xale bi ne moom ngay bàyyi ci àll bi tey mën nañ ko mën na am tentative que ki nga xam ne nit mën na ko gis ci biir mbedd mi jël ko yàq ko maanaam xajumar lii daal feebar la boo xam ni mi ngi ci société bi te mi ngi fiy bëgg a yàgg ñun ñëpp ñu ngi koy déplorer am na nag ñu am fulla am fayda ñoo xam ni seeni doom ñu ngi jàng école français de waaye fexe nañ ba canaliser xale yi ba liñ ci war a def ñu def ko ci taxaw ci nag di góor parce que jullit bi boo xasee ba am doom nekkatoo ku yàlla bàyyi mi ngi lay superviser di la xool alquran dafa jàngale ni yéen papa yi gis nga yàlla bi mu yegsee ci kër gi ba sone soneri bi papa génn daf ko ne man maa ngi dem man la yàlla na nga yëg ni yow papa yow laa teg responsabilité kër gi fexeel ba bul dem safara sa benn doomit bu mu dem safara alquran laa la wax nag yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yàlla nee na yéen papa yeeg yaay yi fexe leen ba bu leen dem safara yéen couple bi doom ju ngeen jurit fexe leen ba bu mu dem safara bu demee safara nu ñuy def responsabilité ndey la ak baay ah imaam kon man mu dëgg yàlla moom naan doon célibataire rek ba koroog may kii ah, macha allah <laughs> dañ ko xaw a jeexalee foofu rek imaam comme que ñoo ngi suñu njeextal émission ah, sama caméraman maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax tey nag ah, sama copain sama doom ndey koor gi dañ ciy wax il faut ñu wax ci koor gi tamit imaam parce tamit xam nga société bi bëgg nañ aussi tamit nga nekk ñëw ci koor gi parce xam nga yow te da am buzz non xam nga nag ñu. maam nag imaam temps yow da ngaa am buzz. non du ma wax sax nag waxu buzz parce que ñun damay wax rek ni lii daf ñu dab. Mhm, maanaam ñun internet daf ñu dab. Mhm. ñun ay télévision yu mag sax woo nañ ñu pour liggéey loolu wax naa ko ñëpp dégg nañ ko. ñun amuñu problème mu buzz xamul tax. Mhm. mooy ñun bu daara ji fayoon. ñi ñu xam nag laa wax de. xam nañ ni ñun am na beneen ruq bu ñu mën a jaar pour dund. loolu ñu ñu xam man miin ma xam nañ ko. donc ñun nekkuñu ci problème mu ay buzz. sénégalais ñoo war kenn ku nekk li la war ci société bi nga taxaw di ko def su fekkee nag loolu day jur ñëpp gis la mu jur ko su fekkee day jar ñu apprécier la fa lillahi hamdu bu yaree ñu saaga la nañ la sax waaye yow li la war def ko te man nag li may def dama jàpp ni lii rek laa mën a def gis ci sama bopp parce que bi jàng jotee dañ ma jàngal bi dugal ma ma am métier jotee dañ ma dugal ma am métier bi loolu paasee nag li ma jàngoon am ko dama ko war a génne joxe ko pour sénégalais jëriñoo ko. di wax nag ni. Mhm. koor gaa ngi ñëw. incha allah wi xam naa ni normalement war na démarrer. Mhm. waaye daal li ma doon ñaan. Mhm. mooy ñu fexe ba woorandoo benn koor. bëri na nag. tey jii ñoo xam ñu ngi toog def comité def nangam liñ ci jublu. mooy comité croissance lunaire pour am xaalis. mais diine ji taxu leen a jóg. seen daal. li ma gëm. débat ñaari nit la. mooy les scientifiques. ak les faqih ñi nga xam jàng nañ droit islamique ba pare xam données yi foofu. ñu dajale ñu def benn fusionné. réew mi benn comité rek doy na fi sëg. ñu àndandoo di xool weer wi scientifiquement. di ko xool religieusement. fusionné ñaari gis-gis yooyu Sénégal mucc ci ay woor ñaari woor ñetti woor ñetti kori ñaari kori ñetti tëbaski loolu daf fi war a jeex mhm. beneen bi ci des bu koor di ñëw di seen sénégalais surtout disquettes yi ak jeunes yi. Mhm. fi mu toll am na ñoo xam samedi tëj nañu. Ah, bii tëj saison tëj saison bi waaw tëj bi maanaam tëj mooy tëju caaxaan rek. Mhm. parce que tamit nag Lamine est-ce que sax ñi nekk xale yi nekk mbuur du lañ doon tëj. Ah, loolu yëpp mën na nekk imam man mujj woon ni ma papa nañ tëj saison. ma ne ko waaw man ma tëj saison maanaam bul tëj ëpp naa def. Ah, ma bañ a dem tëj mukk. imam kon dootuma dem déedéet bul tëj bul dem de. ah eh, Omar. Hmm. dama lay ñaan hmm. te ñi may déglu hmm. gis nga diggante dund ak dee na fi nit bàyyi xel mhm. fi la yàlla bindee nga dugg ci àdduna mhm. ba keroog ngay dem barzaq fexe bàyyi sa xel sa boroom dafa am solo nit ñi nag bu ñu la déggee ngay wax yow mhm. dañu yaakaar ni lu ne yaa nga ci waaye am na ñoo xam ni bis bu leen dee di dab sax ci lu baax rek leen def parce que seen àdduna fexe nañ ba canaliser ko ci mënatuñoo def lu bon mbaa buy doon it lu bon accidentellement lay doon waaye mënatuñ ko organiser nañ seen ba mënatuñoo génn lu baax buñ newul ci lu baax ci kër gi ñu ngi ci biti di dox mission lu baax mhm. soo gisee nag Sénégal weeru koor bu ñëwee jafe-jafe yi am ci wàllu diine ji wàllu solu fi mu toll am na ñoo xam boo xoolee marché yi ñu ngi jënd ay musuwaa ñu ngi jënd ay kol jënd ay kurus kurusu 10 per mhm. kurusu 30 per mhm. yoo xam ni da nga naan liif maanaam xew-xew la wala lan la te fekk jullit bi su weeru koor ñëwee la Sëriñ Tuubaa waxoon rek la war a wax yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadin sëriñ bamba xaadim rasul ne hmm. su weeru koor di ñëw damay bégee kon kontaan mhm. ñu ne ko Serigne Touba nooy def mu ne xanaa di ko tertu ak ñaari loxo di ko tertu ak xol bu yaatu ngir lan bëgg koor ñëw ma ànd ak moom su demee ba may tàggut man Serigne Touba maa ngi jooy ngir lan weeru koor weeru yiw weeru ngëneel mhm. weeru njëggal mi ngi dem te bu demee xamatuma balaa ñëw déwén ndax na ma fi fekk kon nag maa ngi ñaan sénégalais yépp ñu waajal weeru koor wi daañu ci àndandoo ak Allô Sénégal man nag ren ñaari saar laay firi di Allô Sénégal ah. waaw jàkka ji moom damay firi suuratu Baqara jëm suuf comme nañ ko daan defee rek mais jàkk mais Allô Sénégal ñaari suuraat lay firi ah, suuratu Lixlaas dafa am lu tax nag lan moo tax imam mooy pas-pas manqué ci réew mi waaw pas-pas dafa lourde loolu waaw moo manqué te suuratul Ixlaas bu réglé woo rek mm-hmm. pas-pas jeex deuxième suuraat bi suuratu Yuusufa waaw lu tax loolu. dafa nekk président de la république te avant muy doon président dañ ko jiiñoon viol mu jaar prison génn dem nekk président. actualité xew nag ma bëgg ko waxtaane foofu. imaam yow imaam imaam imaam Ba yaa ngi dugg Sonko de. waaw mais du ma ci wax de bu soobee yàlla. <laughs> kon nañ ko jeex nañ ko jeexalee foofu. ma fekkee daal ci biir weeru koor bi. Ah. lu prix mi laaj danaa ko wax. waaw kon dégg ngeen loolu kon yéen yi nga xam ne yéenay seetaan allo Sénégal nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoo ngi suñu njeexital émission comme ni ñu koy defee saa su ne rek fii ci allo Sénégal fii lay lépp di xewee fii la mburum bi di xoyom xoyomee bu leen ko fàtte nag ak imam Malick koor gi du yomb de plateau la ñuy def spécial plateau plateau bu rëy la ñuy def teg imam mu ñuy. teg teg ci diine di teg ci xam-xam. di tontu ci masala yi. di tontu ci masala ak actualité. mais na xale yi la ñuy bàyyi xel de 18 à 16 ans. dañu bëgg xam sa diine parce que imaam loolu xale yi soxla nañ ko man sama genre gi soxla nañ ko aussi. incha